ñii di conseil notable libu yu Grand Cap-Vert gannaaw seen tournée nationale ba ñu nekk di amal ngir sensibiliser askan wi ci bi jangoro di coronavirus daal di nañoo jébbal nag mairie bu Ziguinchor ay jumtuwaay yu am solo li mel ni masque ak gel antiseptique. suñu teewaay fii teewaayu mbooloo la teewaayu organisation la organisation bu boole coutume ak administration ñuy ay libu boole coutume ak administration. Euh, nekk si tournée nationale boo xamante ne li ñu tax a jóg mooy euh, taxaw ci feebar bi nga xamante ne dugg si na ci réew mi ku nekk di ci jéem pexe boo ko boo ko saafara ñun nag pexe bi ñu jël mooy li sunu ay maam daan def def nañ sunuy cosaan ak sunu aada waaye li ci des mooy li nga xamante ne moom lañ ñu sant ne moom mooy teggi feebar bi ci loolu lañ nekk ñu boole suñu ay dërëm ak sunu ay ñaar dërëm jotuñu xaalisu nguur jotuñu subvention wu kenn ñoo dajale ñun ci lu ñu am le grand le CNL bi nga xamante ne mooy le conseil national du Grand Cap Vert jënd suñu ay masque ja gaare suñu oto def ci suñuy essence wër euh, Sénégal ñi ngi déparé euh, Dakar euh, jaar nañ Fatick jaar nañ Kaolack jaar nañ Mbour fu ñu fi jaar seeti nañ autorité administrative e coutumière bu ñu demee seeti autorité administrative yi jébbal leen lii suñu participation suñu seeti jee autorité coutumière yi tamit jox leen suñu participation waaye lancer message boo xamante ne li muy tekki mooy ñoom bu ñu jiitoo ci xeex bi seen njaboot topp ci mooy gën a yomb ñu jël mesure barrière yi di tak masque yi di lal gel yi ba kérok yalla di fi jëlé fièvre bi té ñu ñaan yalla teggil ñuko fi. ki nga xamante ne nag moom mooy jaraafu dëkk bi daal di nay rafetlu bu baax baax jéego ya nga xamante ne nag moom la conseil notable li bu yu Grand Cap Vert daal di def fi ci diwanu jigencho wa di am mbégte trop dalal sama mbokku lébu. voilà aussi demoon ba seet si le roi du sui le roi de de de Mlomp ak yeneen ci traditionnel yu fi nek yëpp ku ñu doole seen doole ñaan pour que mbass mi jóge fi parce que mbass mi. Euh, science bi mënul ko dara parce que depuis bi mu ñëwee ba léegi kenn amul vaccin bi kenn amul sérum bi pour faj ko comme ñun ay nit ñu gëm nañu une société de croyants donc am nañ yaakaar ni que bu ñu ñaanee yàlla dinañu génne mbas mi. yii lépp jéego daal dinay antu gannaaw ndimbal yi nga xamante ne nag yenn organisation citoyenne yi daal nañ koy def rawatina conseil notable lébu yu Grand Cap-Vert